bi ma si jokk premier ministre ñoom def nañ organisation liggéey bu rafet ba nga xamante ni tey euh, situation bi ni mu meloon malgré que wàññiku na kon kooku ñu ngi koy remercier ci loolu. yow nag boo ñëwee nekk ministère boo xamante ni yaay kilifaam nekk ak Moustapha Ba ak sàmba si askan bi ñu nit ki bu defay dara danga nga koy encouragé pour en ëllëg na directeur yëpp mel ni moom parce que mi ngi liggéey te bërul wax boobu laa ko gëj a xam en tout cas mi ngi def lu baax. beneen bi monsieur le ministre ñu jëm ci mbirum napp gi. situation bi ñu si bëree bari ñu si wax xamuñu si lu bari parce que fi may wax ak yow Sénégal dafa am ay convention yu mu signé ak ay nattangoom bëgg nañu xam convention yu mu signé ak accord yu mu ñaata la si état Sénégal di gagné. parce que nag tey ji suñu bit si bii nga xam ne ñoo koy wote Assemblée nationale am na si loo xamante ni ci convention yi ak li nga xam mooy accord yi dugal nañ ko si biir bit Sénégal bi nga xamante ni ñoo koy war a wote mu war a doxal ministère yi beneen bi li jëm ci mbirum. gaal yu mag yi monsieur le ministre gaal yu mag yi kenn mun leen a léeg-léeg ñu dugg si biir ak tasee gaal yu ndaw yi fël yéen wala ñu def loo xamante ni kenn xamul nu mu toll yéen nan ngeen teg pour que maanaam fas yéene contrôler gaal yooyu nga xamante ne maanaam bu ñu duggee si biir géej gi fi leen war a yem la duñ fa yem. monsieur le ministre ku ne xam na ni napp dafa bari ay façon tey boo jëlee dafa am lu ñuy wax naan euh, mbal euh, filaat tor am na tamit mbaal saynu am na mbaal siran am na mbaal filaas am na mbaal dumitoor am na mbaal boo am na ñoo waxante ni moom la wax gaalu kees yooyu yëpp dafa am léegi li nga xamante ne moo nekkoon pour promesse président de la république ci napp bi pour bañ ñi maanaam ndaw ñi génn di gàddaay réew dafa waxoon dana am subvention bu am solo bu mu xam da ko jagleel nappkat yi loolu fan ngeen si toll gaal yi nga xamante dañu waxoon dañ koy sensé du ko si dénk yóbbu ko si métallique fan ngeen toll ci gaal yooyu noonu li nga xam moo ne ko moteur yi nga xamante dañ koy subventionné ñaata moteur ngeen jot subventionné ci li nga xam moom mooy Sénégal leneen li si des mooy le ministre ñun bu ñu sañoon kenn du tukki di gàddaay di bàyyi sa liggéey mais nappkat dañ leen war a jàppale te leen tey wax ak ñoom parce que amu leen nag communication bu jëm si ñoom parce que lu si bare bari manque communication moo ko waral ndax ndaw loo xam ne dafa juddoo si géej nekk lébu amul lu dul maanaam war a dem napp si géej gi gis tey ji fa mu war a napp ay gaal dafa napp ëpp ko dool dëkkuñ si réew mi loolu yaay problème loolu moo tax li nga xam ne mooy dernier maanaam bi ñu ne bu ñu yàlla mayee ñu jël réew mi 2024 en tant que candidat nekkal fi askan wi doomu daara dañu fexe jël ressources naturelles yi nga xamante ne géej bokk na si ñu delloo ko askan wi parce que nag jàpp naa ni contrat yi nga xamante moom la si signé malgré que am na koom-koom bu mu indi réew mi waaye li muy si liggéey nag ak li tax que ñuy gën dem di bitim réew di euh, daani seen doole bari na lool en tout cas bonne continuation li des bareetul trois mois rek nga après ngeen xajal ñu parce que Cheikh Abdou ñëw jël réew mi xam naa bu ngeen jël réew moom dina am ñu ma liggéeyal mais damay segg xëy na ma boole sama côté mais en daal vraiment ñi nga ñi ngi lay ñi ngi lay souhaiter bonne di remercier ñi nga xamante ni ñoo nekk si ginnaaw parce que techniciens yi du ñu yi askan rek moo la di jot réew mi da nga ñoom en tout cas je vous remercie maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah